li yàqu yàqu na irresponsabilité bi ñu am ñoom tax na sacrifice yi sénégalais defoon yépp fi mu ne nii nen na parce que dañu defoon sacrifice ñu tëj nit ñi laaj ñu suñu xaalis ak yeneen ak yeneen personnel médical bi lu ne mu daj ko ci ba ñu dem ba doon am ay 1 cas 0 cas yu demee noonu loolu yépp tey nañu jàpp ni nërmelu na kon lan moo ci des la may wax ci samay proposition mooy ci li ñuy wax en amont mooy ci njëlbéen ba dama gëm ni confinement waratul am Sénégal confinement du solution bi li tax du solution bi mooy benn boroom xam-xam yépp nee nañu ci réew yu mel ni suñuy réew confinement bi mënul am résultat parce que kër yoo xam ne boo fa demee di fa fekk juróomi nit fukki nit fukki nit ak juróom kër googu ci boppam mun na doon li ñuy wax cluster mooy moom ci boppam mun na doon foyer boo xam ne fa la feebar bi di di développé ñaareel bi mooy mënatuñu génne ñoom fonds Covid 19 ba naan dañuy joxe ay kit alimentaire amatuñu ko pasar pasar nañu xaalis bi te leb naa le lebaleb ba kenn bëggatu ko lebal. dernier bon bi mu dem lebi dafa plafonné léegi capacité te àdduna bi nag ne Sénégal di xam ni réew boo xool tey moo moo la gën a soxla boppam ndax ñoom ñëpp ñu ngi xeex ak feebar bi di génne ay milliards d'euros ou de dollars pour jënd vaccin bi di def euh, di di di jàkkaarloog crise économique boole kook ay catastrophe naturel ka barki démb rek Allemagne bi glissement de terrain yi amee. nee nañu il faut 5 milliards d'euros pour Allemagne reconstruire kër yi fa yàqu kon réew yooyu tey tal nañu leneen lu dul di jox ay nit xaalis ñuy jëndi avion te lii bokk na ci jàngat yi ñu ci war a am mooy lajj gi ñu lajj ci wàllu économie parce que ci wàllu économie soo mënul créer li ñuy wax économie endogène mooy fexe ba li ëpp ci li ngay soxla nga produire ko sa réew su choc exogène ñëwee mooy su problème amee ci àdduna comme yow da ngay jéggaani lépp yow yaa koy gën a yéeg ñeneen ñi tey Sénégal 80 pour cent li ñuy consommé dañ koy jéggaani 63 pour cent notre économie secteur tertiaire la secteur tertiaire du moom mooy supporter choc endogène ak ah, exogène cest secteur tertiaire mooy yi Sonatel Expresso et cetera wala banque yeeg assurance yi wala yu demee noonu loolu. du mooy supporter choc exogène nga am mbay mu dëgër am càmm gu dëgër am napp gu dëgër am artisanat bu dëgër am ay industrie yuy transformé loolu moo lay permettre nga supporter choc yooyu te loolu dañ koo lajj Sénégal ba nga xam ne tey yelwa welwaan rek la ñu mën a def ñetteel bi tax mënuñoo confiné waat nit ñi mooy euh, sénégalais yi ñi ngi ci jafe-jafe yu métti te leen teg jafe-jafe yi mooy échec yi ñu am ci suñuy politique économique koo mënul jox liggéey mënoo ko jox saleer munoo koo faj kooku soo ko nee tëjul sa kër da nga koo bëgg a moo tax warul am te waruñu koo nangu kenn warul fee confiner sénégalais yi waaye nag loolu pour mu dox il faut que kenn ku nekk ci ñun sénégalais yi laay waxal man waxuma ak ñoom de li may wax mooy responsabilité individuelle la kenn ku nekk ci ñun su dee duñu confiné kenn ku nekk ci ñun na jël ay matuwaayam ba li ñuy wax les mesures barrières mooy euh, jumtuwaay yi nga mën a jël ba mbir mi du la dal nga def ko te nag mbokk yi man de su may dox ci mbedd mi maa ngi xool Sénégalais yi waaye sàggane nañu masque bi torop kon mesure barrière yi dama ko ñaan sénégalais ngir yàlla parce que amul dara lu ko ëpp efficacité nag ñii vacciné wu soo demee Europe tey ku vacciné wu sooy génn da ngay takk masque vaccin bi terewul nit nga takk masque kon loolu mooy première mesure yi na ñépp delluwaat ci takk masque yi góorgóorlu ci ñaareel bi mooy li nga xam ne mooy distance yi ñu war a am suñu diggante nañ ci gën a góorgóorlu it ñetteel bi mooy ndaje bu dul ndaje bu obligatoire nañ ko moyetu ndaje bu dul ndaje bu obligatoire nañ ko moyetu su ma nee obligatoire mooy ndaje bu dul farata nañ ko moyetu farata nag day varier selon les contextes parce que su dee diine ci boppam moo la ne dem julli ji jumaa farata la waaye bu ñu demee ba ab feebar boo xam ne mun na wàll nit ki ci jumaa bi wala ñu nekk guerre ba soo fa demee ñu rey la ñu ne la mën ngaa julli sa kër kooku farata gi teggi nañ ko kon ñun ñoo war a jël suñu responsabilité xam ni mën nañu gañe virus bi gañe nañ ko benn yoon gañe ko ñaari yoon fa ñu jaaroon ba gañe ko benn yoon ñaari yoon suñu sa jaaraatee gañe ko donc bu ñu ne ah lii daal ay wax rek la ku nekk bàyyeeku nañu respecter mesure distanciation yi nañ ko respecter ñun de ci li ñu conserné li nga xam ne lu ma waroon def la man te Sénégal yëpp doon ko xaar muy nemmeeku tour bi ma waroon yóbbu ma wër Sénégal yëpp ah suspendre naa ko ba jëmmi jamono ba situation bi gën koo permettre parce que politique mooy suñu option waaye dafa am jamono joo ko mën a def ak jamono joo ko mënut def wala jamono joo ko mën a defee noonu ak jamono yoo xam neneen nga koy defee kon loolu benn la ñaareel bi mooy ci hôpitaux yi ndo comme amaguñu jumtukaay yi ñu war a am yépp il faut que ñu réorganiser proposition bi may def foofu mooy lépp li nga xam ne du lu jàmp ci wàllu chirurgie mooy opération yi euh, ak euh, yi nga xam ne ay hospitalisation programmée la te jàmpul yooyu yëpp nañ ko suspendre lal yooyu nga xam ne moom la ñu waroon occupé ñu transformer ko def ko ay lal yoo xam ne day mun a dalal ay nit yoo xam ne dañoo am jàngoro ji ñetteel bi mooy médecin yi ñoom docteur Cissé mii ma koy gërëm ndax dañ cee liggéey lu bëree bëree bëree bëri mooy yor suñu commission santé mu liggéey ceeg médecin yu bëree bëree bëri ak ñeneen ñi ma liggéeyal ba ñu ne bitim réew ma leen di gërëm fi fii ci ci ci collaboration bi waaye médecin yi ak personnel de santé bi ñu former leen ci ni ñuy gere ni ñuy toppatooyee les cas simples parce que souvent dañuy wax dañuy concentré wu trop ci cas grave yi cas simple yi ñu xaw leen a sàggane ñi nekk ci kër yi ñii di tëdd ci couloir yi cas simple yu bëri mooy mujj nag ci ci sàggane bi ñu ko sàggane mooy mujj nekk cas grave ñetteel bi mooy euh, saalu réveil yi nga xam ne ci bloc opératoire yi ak centre de réanimation yi ñu mettre ko à la disposition gestion Covid bi ñi nga xam ne ñooy médecin anesthésiste ak réanimateur yi mun na nekk foofu toppatoo les cas graves ñeenteel bi mooy ñu jo ñu approvisionner réew mi en oxygène mbokk yi gàcce la ñu ne vingt-et-unième siècle Sénégal dafa am problème oxygène ñuy génn di yi waaye lu am la Sénégal dafa am problème oxygène kon nañu approvisionner réew mi oxygène bu doy te ñu fexe ba oxygène bi bu mu manqueeti juróomeel bi mooy ñu yokk lits de réanimation yi nañ ko yokkaat bu baax a baax a baax moo xam fu muy jëli jee xaalis bi nag loolu day topp day suñu juróomeel bendeelu pour position mooy comme dañoo soxla xaalis yàq nañoo yàq yàq yàq ba tey fu ñu jëlee xaalis dina leen të mooy lii nga xam ne institution yu amul benn njëriñ la ci réew mi benn njëriñ conseil économique social acct euh, ak xawma yan nañ leen supprimer jël xaalis boobu jëndee ko ay lits de réanimation parce que amu fi njëriñ kan fii ci salle bi moom mun a wax ban njëriñ la institution yooyu am kan moo mës a seen benn rapport kan amu fi njëriñ juróom-benneel bi mooy ñu gën a développer test rapide yi fexe ba mu accessible parce que du yoon ab sénégalais yëg dara ci yaramam njort ni lii la nga dem def test te xam nañ ni variant bi dafay développer rapidement ci dernier jour yi ñu naan la xaaral ñetti fan ñeenti fan juróomi fan pour nga jot résultat test bi loolu du yoon juróom ñett ñaareel bi mooy masque yi ñuy takk foo romb ci mber mbedd mi gis ay masque ma ci interpeller nguur gi il faut ñu teg benn système de collecte et de recyclage de ces masques parce que masques yi li gars xamul mooy du c'est pas biodégradable mooy du du gaaw a yàqu ci suuf si masque boo ci gis il faut 400 ans pour mu dégrader wu moom ak mbuus yee yem parce que matière bi ci nekk la comme am na tey ay société ay entreprises yoo xam ne loolu la ñuy liggéey il faut que ñu def benn système bu ñuy collecter masques yooyu pour gérer notre environnement parce que dafa am solo loolu yëpp tam ñu boole ci su dee njort nañu ni bëri na am ñu ñu ñoo xam ne ñi ngi ñàkk seen bakkan ci biir kër yi te demuñu hôpital ñuy laam-laame na moom la wala du moom parce que ki nga xam ne dafa dem def test ñu ne ko corona la mu dem hôpital ñu faj ko sottiwul mu wa mu mu jaar fa faatu kooku dafa am benn protocole sanitaire bu ñuy def service di d'hygiène ñu désinfecté corps bi et cetera doog ko dem yéet ay mbokkam waaye ki ki ki ki dee ci kër ga te xamuñu ndax moom la wala déet te nee nañu virus bi ki nga xam ne ñàkk na bakkanam ba pare ci yaramam la gën a am doole que ki nga xam ne mi ngi dund kon su dee loolu am na bu dee am na ñoo xam ne mbir maa ngi leen di rey seen kër te ñu nekk en contact ak seen waa kër nekk en contact ak ñi leen di suuli ñi leen di sang kon ñaata nit la virus bi mën a contacter kon tous les cas suspects dañu war a def prélèvement ak analise balaa ñu koy yóbbu naan dañuy suuli su ko mënul nekk nañ def protocole sanitaire obligatoire man de dem naa keroog ci benn dëj waaye bu ma gisee ñu teg kees bi nit ñi génne dugal suul te ñu ngi doon laam-laame naan moom la wala du moom sama xel tey na te loolu tam dañ ci war a jël ay matuwaay mu des nag fi may daanele la jëm ci ñàqu bi la jëm ci ñàqu bi muy vaccin bi faw ñu wax ci ndax it ñu bari woon nañ ma ne mu waaw bul wax ci vaccin bi c'est sensible homme politique lu xew ci réew mi te war a concerner waa réew mi yépp da nga cee war a gëstu càmbar ko waxtaan ceeg ñi ngi ci war a waxtaanal boole kook leneen leneen li nga yor boo dajalee loolu yëpp da nga war a am position wax ak nit ñi parce que ay nit a ngi lay déglu te nit dina la déglu fu mu dégluwul keneen koo xam ne peut-être loolu moo la ci ëpp xam-xam li ma ciy njëkk wax ci vaccin bi mooy jàngat gi ñu war a njëkk am ñun africain ci lii mooy tappale yorul am réew seetu leen ni àdduna bi yëpp continent yëpp produit nañ vaccin ba mu des Afrique Asie produire na vaccin ndax Chine am na vaccin Inde am na vaccin Europe produire na ay vaccin euh, Amérique produire na ay vaccin Afrique mënul produire benn vaccin li ko waral mooy fi ñu waroon investir sur le capital humain ñu ngi jël xaalis di ko pasar pasare ci politique ci jënd ay nit pour ñu voteel la ci dugal ay nit ci ay cas di leen yóbbu mel ni ku yor sa sa sa sa sa sab jur xaalis bi ñu waroon dugal ci njàng mi pour am ay scientifique yu taxaw gannaaw bu ñu ko amee ñu créer leen ay cadre pour ñu mën a def recherche fondamentale recherche développement xaalis boobu la ñuy pasar pasaree moo tax sénégalais il faut ñu yeewu ñu doon dugg ci kaar yi leen di yóbbu Fuuta ak di leen yóbbu Kaffrine nañu xam ni xaalis bi leen waroon faj xaalis bi leen waroon a jox liggéey seen doom xaalis bi leen waroon tabaxal ay tali xaalis boobu rek la ñuy jël di leen di leen dugal di leen yóbbu perte buy am yéen rekk a ci perte ñoom perte ñu ci dara ndax jógewul seen poos ngir yàlla na sénégalais yeewu benn yoon réew caaxaan du ko defar waaye caaxaan gi du rek caaxaanu homme politique yi dafa am lenn ci askan wi yu leen topp ci loolu mooy premier jàngat bi ñaareel bi mooy il faut ñu accepter débat di am parce que réew mi dafa am lu fi am loo xam ne man kenn duma ko mën a mooy su dara amee rek ñu ne ñoom ñii lañu bëgg ñëpp xalaatee foo jaar ñu ne la ñu joxañ la ne la ni nga war a xalaatee ba pare nag def benn propagande médiatique boo xam ne nit ñi sax dañuy ragal wax ndax ku wax ñu ne waaw moom de dafa contre lii wala moom de dafa lii mais demal France demal Angleterre demal États-Unis demal man chaque jour damay toog taal seen yi di seetaan suba ba ngoon jot ay débat la yi toog débattre homme politique yi toog débat ñii ne d'accord na ñii ne d'accorduma c'est ça noonu la société di doxee te ñu war a nangu it ñi war a nanguwit it nii sénégalais yi dañu am ay question ñoom ñoo war a génn tontu question yooyu sénégalais am nañ sañ-sañ am question ne ah man de ñàqu bi bëgg naa ci xam lii balaa ma ciy dugg bëgg naa ci xam lii nun duñu ay bàyyi ma yoo xam dañu lay takk rek yóbbu la ne la aywa li may wax nag li ma ci gën a bëgg a leeral mooy man contre ma vaccin contre ma vaccin de bi ñu juddoo ba léegi ñoo ngi vacciné wu te vaccin yooyu amul benn bu ñu ci defaree Sénégal à ma connaissance wala voilà, donc problème bi du est-ce que contre na vaccin wala contre ko gëw moo it ni vaccin bi complot la ndax bu doon complot ñu ko defar duñ ko xëccoog ñun parce que xel day loolu lay jëriñ bu dee ñoom ñu ngi koy xëccoog ñun ba ñun munuñoo jot ci vaccin bi ça veut dire ñoom jàpp nañ ni vaccin bi lu baax la ba tax ñu koy def kon loolu dama bëgg mu leer balaa parce que sénégalais da ngay génn fii rek waaw moom nee na moom ne déedéet damay wax lu leer contre ñu principe bu vaccin àdduna dafa dox dafa nu muy doxee dafa gaaw science dafa dox médecine bii vingt ans vingt cinq ans trente ans ci gannaaw ku la mu mënoon ku la waxoon opération éveillé nga ne xanaa kii wérul waaye tey ñu ngi koy def kon vaccin it bu dee ñu ngi ko doon defar si quinze ans vingt ans science mun na dox ba ñu defar ko ci anam bu gën a gàtt waaye bu ñu ko génnee nag kenn ku ne balaa nga koy ñàkku am nga sañ-sañu laaj yi nga xam ne lu lënt la ci sa bopp am nga sañ-sañu laaj ñoom lii seen responsabilité mooy ñu tontu sénégalais ci laaj yooyu dalal xelu sénégalais yi waaye kenn amul sañ-sañu laaj ñépp nañu dem rek vacciné wu man nag bi ma ci tollee dama laaj samay laaj liggéey ak docteurs yi infectiologue yi keneen ak keneen bokk na ci laaj yi ma laaj mooy est-ce que mun nañ ma wax ñàq bi ku ko ñàqu ñaata weer la lay couvrir la lay couvrir parce que su dee décideur politique nga boo waree engagé sa peuple ci dara war nga xam ni lii à court moyen et long terme lan la ba léegi aw tontu ci laaj boobu laaj naa docteur yu bëri ñi ci gën kii daal nee nañu ñoom li ñu jàpp ci li ñu liir mais du catégorie mooy mën na nekk entre 3 mois et 6 mois ñetti weer ak juróom-benn weer soo déggee loolu mooy ku vacciné wu tey. toogaat weer wala ñaari weer jël sa deuxième dose li ma jàpp mooy buñ ci tegee juróom benni weer wala lu teg lu ci legu tegu tuuti war ngaa dem ñaquwaat kon nañu xam ni cycle bu ubbeeku la peut-être loolu tax Pfizer dugal autorisation pour troisième dose te démb si guddi laay seetaan journal gis ni Israël autorisé nañu pour ñu joxe troisième dose kon laaj yooyu am nañ sañ-sañu laaj ko parce que dañu dañu war a xam li ñuy dugg lu mu doon ak fu mu ñu jëme ñaareel bi mooy vaccin bi ku ko ñàkku ndax mën nga jëlaat virus bi léegi tontu bi ñun ñëpp am nañ ko nit dina ñàkku ñaar virus bi ñëwaat dugg ko léegi nag ñi ngi laam-laamee est-ce que su ko duggee mbir bi da da da vaccin bi da koy néewal doole ba du ko yóbbu fenn fi am déet loolu nag ay études cliniques dinañ ko prouver am déet mais pour le moment li leer ba leer mooy nit mun na ñàkku jëlaat vaccin bi ba ba taux de couverture bi nga xam ne dañ naan ñii naan 60 pour cent ñii naan 70 pour cent ñii naan 95 pour cent mooy vaccin bi boo ko ñàkkoo ba noppi téeméer yu ñu ci ñàkk selon taux de couverture bi am na ci 80 pour cent yoo xam ne dañuy réagir ak 20 pour cent yoo xam ne dañu réagir. waaye xanaa loolu am naa sañ-sañu laaj ko tekkiwul dama contre vaccin loolu sénégalais yi moom lañuy ñuy laaj euh, bi may daanelee mooy ndax vaccin bi day résister ci variant yu bees yi parce que gis nañ ni affaire bi dafa mel ni moom fi mu ne nii ñu ngi ci cinq variants yu bokkul ñaari mujje mooy delta bi ak lamda bi nga bi ñu ne moo nekk Amérique latine xamuñu ndax ndax euh, si quelque temps ñu ne yeneen variant ñëw na. gis nañu ay réew yoo xam ne demoon nañu ba vacciner 80 pour cent de leur lu mel ni Seychelles mu jël vaccin chinois bi mais variant indien bi mu ñëwee mu ngi fay def ay ravage parce que étude bi wane na ni variant variant bi ñu am ñoom euh, euh, euh, vaccin bi ñu vacciné wu variant chine mënul téye variant indien bi gis nañ ko it Afrique du Sud ñoom dañoo mujj annulé AstraZeneca bi ne adapté wul ak variant Afrique du Sud bi. kon yooyu ay question légitime la yoo xam ne Sénégal dañ ko war a laaj te ñag bëgg naa ñoom ñu jàkkaarloog sénégalais tontu wax sénégalais lu leer ci question yi parce que ab peuple boo ko buggee defloo dara da ngay dalal xelam ba tax ñun li ñu jàpp mooy euh, loolu yëpp boo ko boo ko seetloo nga boole ci ni amuñu lu doy ci vaccin ñun amuñu lu doy dañuy yelwaan vaccin réew yu mag yi sax ba léegi dese na leen tuuti boo seetee statistiques yi nee nañu ba bi may arrêté euh, euh, recherche yi semaine passée nee nañu 865 000 vaccins la ñu nit la ñu vacciné 865 000 doses waaye 865 000 doses yooyu 256 000 rek ñoo ci jëloon ñaari doses yi ñeneen ñëpp a ngi wër di ut deuxième dose bi mënuñu ko am. foo dem ñu ne la jeex na loolu nag li mu moo ne mooy une mauvaise politique de vaccination parce que boo amee 800000 doses da ngay vacciner 400000 yi téye 400000 yi pour deuxième dose doo nga dem uti leneen parce que ça ne nga jox nit ñi premier dose seen période jeex mënoo leen jox deuxième dose je préfère vacciner complètement 1 pour cent de ma population plutôt que de vacciner partiellement deux pour cent de la population mais loolu c'est élémentaire ñun est-ce am nañu politique de santé dans ce pays sur 800 000 cas il y a que 250 000 yu jot seen deuxième comme la politique est désordonnée tantôt euh, Sinovac bi la tantôt AstraZeneca yooyu amatul ci réew mi après ñu andi la Johnson et Johnson suba ñu andi la Pfizer donc ñi jëloon AstraZeneca mënuñu jël deuxième rappel jo euh, Pfizer wala docteur donc comme yooyu yëpp am na fi ñi ni ñu jàpp mooy. Euh, ñun waruñoo toppandoo ñeneen ñi seen politique vaccinale parce que feebar bi ni mu mel ni mu présenté wu fii bokkul ak ñoom waaye ñoom doole gi ñu am amuñu ko moo tax ñaar dinaa ko wax pass waruñoo forcer nit ñi vaccin bi waruñu forcer benn sénégalais vaccin bi nit ñuy force vaccin bi nag ñaari anam la mun nañ ko forcer indirectement mooy li ñuy wax pass sanitaire. mooy dañ naan ah ku mu neex nga vacciné wu ku mu neex du vacciné waaye ku vacciné wul dootoo dugg ci kaar ku vacciné wul dootoo dugg ci restaurant ku vacciné wul dootoo dugg ci euh, bureau administration ku vacciné wul dootoo dugg ci jàkka xam nga loolu mooy forcé dinga nga vacciné ñaareel bi mooy ñu ne nag léegi c'est obligatoire ku vacciné wul sax dinañ la tëj kaso dinañ la condamné wala di nga fay ay amende loolu waruñu warul am Sénégal waruñu koo nangu d'ailleurs mënuñu ko ndax ku amul vaccin mënoo ko mënoo ko def kenn ñaareel bi mooy comme vaccin bi lañ ci am dafa néew nañ ko jagleel dans un premier temps li ñuy wax les personnes vulnérable les personnes vulnérables mooy mag ñi ñi am 65 ans jëm kaw ñooñu nañ leen jagleel vaccin bi en priorité ñooñu pareeguloo leen vacciné nga ne léegi 18 ans yi ngay ngay ngay ciblé lan mooy c'est projet finalement ndax dégg ngeen ministre de la santé keroog bi mu demee di jëli vaccin Johnson and Johnson bi nee na affaire bi dañ koy ubbi au 18 ans yow mag ñi vacciné gu loon te ñoom ñëpp wane nañ ni 99 pour cent taux de mortalité bi ci mag ñi la ñi mu mën a rey ci ndaw ñi li ci ëpp 99 pour cent yi mooy ñi nga xam ne dañoo amoon yeneen jàngoro yu métti lu mel ni jabet yooyu ñuy pikiiru wala obésité yu ëpp yi wala walla donc balaa ngay. xool ndaw ñi na nga njëkk a vacciner mag ñi sécuriser leen parce que xale yi ils sont immunisés à 99 pour cent wala plus loolu xel war na ko mën a nangu lii mooy yi nga xam ne lu ñuy yedd nit ñi la waaye di daaneel ci insisté waat une fois insister ci ndaw ñi ngir yàlla nañu takk max yi nañu jël les mesures barrières parce que même suñu vacciné mag ñi ak ndaw ñi nga xam ne dañoo am facteur de comorbidité mooy dañu am yeneen yenn jàngoro suñu leen ñàkkoon ba noppi te nit ñi nekk jëluñu mesure barrière ba di dugalaat mbir mi ci ci kër yi même avec le vaccin mag ñi mun mun nañ ko jëlaat te ku ci amoon yeneen jàngoro mun na la faat kon nañu gën a góorgóorlu ci yooyu lii mooy li ñu bëggoon waxtaan ak yéen mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen wax nii waxtaan bi ci olof rek laa ko fas yéene woon def ndax euh, euh, léeg-léeg boo bëggee def ci wolof def ci français dina gudd te jàpp nañ ni suñu waxee ci wolof ñi ci war a jot ñëpp nañu ci jot ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum